mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay su guddee fooy fanaan mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay su guddee fooy fanaan bismillaahi rahmaani rahiim muy nuyu ñu fi fekk ñëpp ci leen suñu sotti ak sa sant mooy di ñu sosité bokk ak moom tiis bu fi am di wax Double mooy papam bi ko jur waaye suñu papa lañu ñun ñëpp ma ne ko fierté Sénégal la woon parce que yàgg na génn représenté Sénégal ci biti kon tey Sénégal yëpp ñàkk ñoom ñàkk nañ ñu ngi leen di jaay lu ñu bokk di ko ñaan yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana te waaye fa suuf ci kawam yàlla jël koy bàkkaaram njaboot gi mu fi bàyyi yàlla teg ci loxo fi mu leen féete woon buur yàlla féete leen fa leen waax ñoo ngi masawu encore bu baax a baax parce que kenn ku nekk xam na fu waajur tollu ci doom ma ne ko boo ko manqué rek yëg ko waaye mbirum yàlla nag moom noonu la fii kenn saxu fii xam kenn saxu fii ñëpp la dem ba tax na ñu nit buñ ci toolee yàlla nañu yàlla yërëm parce que ñëppay dem àlaa kulli haal xam nga di ko ñaar bu baax a baax di bokk ak yéen coono bi comme ni ngeen ko waxee rek dama génnoon nekkuma fi waaye ba affaire bi amee yëg nañ ko ba jour boobu sax accepté naa def interview ndax loolu parce que ko parce que Sénégal yëpp a ñàkk vraiment vraiment ñu ngi leen di masaw bu baax a baax a baax a baax daal xam na leen wax yàlla na yàlla yokk taxawu ñu yéex koo fayante vraiment comme li nga wax rek suñu adversité lépp ci tàkkusaan benn tàkkusaan la yem kenn ku ci nekk ginnaaw yàlla sa intérêt si sa morom la nekk parce que tey bu ñu bëriwul du ñu fayeku du ñu am tax na ay adversité lañ pour benn takkusaan ay bu loolu weesoo ñun ñëpp ñoo bokk ndey boo ko bàyyi wallahi alazim lu ma yéene sama bopp laa yéene Balla laa yéene keneen ak keneen ak keneen ak keneen ak keneen xam parce que ku nekk xam na làmb lu ci nekk coono moo ci nekk te ñun ñëpp nattu mooñ ci dugal rek wallahi keneen ku doon tànnal sa bopp métier defe naa di nga tànn leneen dama gëm ne làmb ñun nattu bu ñu yàlla nattoo la boo tax na xam dañ koy nangu rek te te jéem a rafetal tamit te jéem a rafetal vraiment am nit jaale di jaale sa Thiès say rakk say mag yëpp say waajur ñoo ngi di jaale bu baax a baax a baax lu ñu bokk moom li nga wax xam maa waxoon ñoom père xaar leen bu ma ñëwee ñu mënta ñu mënta ñàkk nañ dem mais ñeen xaar leen bu ma ñëw ñu ànd bokk dem bokk bokk tiis bi daal di leen masawu encore bu baax a baax a baax a baax di leen jégalu kat bi jaar muy bari dañ fi ñëw rek pour masawu bokk ak yéen coono bi bokk ak yéen jaar mi daal jërëjëf waaw asalaamaaleykum maa ngi leen nuyu yéen kenn ku nekk turam ak santam di nuyu suñu papa Birame ñu ngi di la ziar baax di la jox sa wàccuwaay di la wax ne kontaan nañ trop ba dëgg yàlla ndax euh, chaque jour que jëfee rek yaa ngi wane ne kilifa li mu war a doxale rek moom ngay doxale ndax euh, saa ñu dékkee micro wax bu rafet la ñu yàlla Modou maa ngi lay nuyu baax a baax di la siyaare di la jox sa wàccuwaay euh, di wax na nag maa ngi am kontaan bu baax am mbégte di nuyu Khadim Gadiaga di suñu nit ku baax wax dëgg yàlla fu ñu yàgg a daje it wax bu rafet léegi la ñu sekk di Papis maa ngi lay jaar hmm? di nuyu Prince maa ngi lay bégg bu baax a baax ak Fallou maa ngi leen di siyaar ak Paul Jamaïcain euh, maa ngi lay nuyu ak comment ça va maa ngi lay siyaar bu baax yaaram maa ngi lay bégg bu baax a baax di wax ne kontaan naa bu baax a baax a baax ci yi nga xamante ne déplacé ngeen pour ñëw fii. ndax ba affaire bi amee wax dëgg yàlla ñoom papis ñoom ñëpp gis naa leen ci affaire bi kon depuis boobu ba léegi vraiment wane ne rek ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoo bokk lépp lu ñu ñàkk suñu baaba nag moom exemple la ci exemple la ci réew mi nu mu nekkee exemple noonu la ko mbéygee nekkee noonu la ko Moustapha Gueye nekkee noonu la ko Yékini nekkee ba ñun tey suñu génération ñu ñëw moo du ñëpp xam nañ ne maak moom ay rivalité bu ñu koy wax sax man ay rey daf may jàpp ndax liggéey lañ bokk moom may may ma koy may ñu ne neexee xeex bu ñu neexee xuloo mais ci kaw liggéey bi mais waa dóor ko làmb réeréwuñu chaque jour dañuy nekk ci whatsapp bi di waxtaan li nga xamante ne làmb pour mu jëm kanam amuñu réeróo kon vraiment pour ñu ko xamul rek ñu leeral leen ko tey rek ñoo xam ne lii làmb rek la gëm naa ne ni ma ñàkkee sama papa noonu la ñàkkee papam papam ni mu ko ñàkkee noonu laa ñàkkee sama papa ndax ñëpp xam nañ ni waajur moom boo ko ñàkkee météo bi ci nekk rek ku ko ñàkkul mënoo ko xam waaye moom xam na ko kon ñooy même chose kon ñu ngi ñaan yàlla daal vraiment euh, seen déplacement bi yàlla na leen ko yéex a fayantoo yàlla na yàlla fay tànk yiw yàlla na yàlla jox euh, tànk ciyaaba ak lépp li nga xamante ne bëgg ngeen ko rek yàlla na ko suñu borom defal donc vraiment kontaan naa trop toogaay bi yàgg na te kenn amul jot ñëpp xam nañ ñu jot dafa manqué. waaye kenn ku nekk ci jotam nag bu la ko xajalee indil ñëwloo seesiloo mënoo ko fay yàlla moom seen fay nag yàlla na suñu borom fay journaliste yi nag boobu ba léegi xam naa ne moom ñu ngi fii donc vraiment maa ngi leen sant di gërëm Abdoul Aziz bëggoon na fekkee lii mais yàlla dafa dogal nag soo ba léegi dafa ñàkk jot fekk Matar ba di fa ñëw ñëwul sax ndax dafa génnoon moom it moo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm tamit àdduna moom bu sa mbokk ñëwee rafet na aussi tamit mu xam ne buggoon na fee ñëw yàlla dogal ma mu nekk ci yite Baye njaay aussi tamit noonu. Mm. ñi ma àndal ñëpp ku ci mel ni Lamine Tafa euh, Baboy Buur ñoom ñëpp a ñoom commissaire ñoom Baye Ndiaye donc vraiment ñoom it kontaan nañu ci àdduna moom yaakaar naa nii rek la ñi ma leen gisee tey nga ànd ak ñoom ñoom laa la mos gisee nga ànd ak ñoom bapat ba yoonu yàlla tey ba yàlla def la roi des arènes man ñii ma àndal tamit ba léegi ñoom lay àndal tey démb ak barki démb kon loolu lépp lu ñuy def ñu ngi ak seen xel ñu ngi ak seen lépp lu ñu war a def ñu ngi koy def mbër gor la mbër jàmbaar la mbër ku yiw la kon vraiment kontaan naa daal. mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di leen nuyu di leen sant. di yeesal suñu njaal la fal lu Ndiaye ànd ak ñun ak délégation bu fort. ànd ak Jams ànd ak man mii. Balla fàll mu ngi lay jaale sa waay sa xarit sa soppe di ñaan suñu papa dubale si yàlla na ko yàlla kii yàlla rek yàlla yàlla na ko yàlla xare àjjana si barke Seydina Mohamed ak ñu fa fekk ñëpp lu am solo ba am solo ñaar ñuy toog tamit dañu wane un bon exemple na xale yëpp xool su moom lu am solo ba am solo Balla baayam yar na ko kenn dootu ko wax ndax lii moo ko waral kenn ku nekk ñaan yàlla boo génnee àdduna nga am njaboot bu la taxaw olof nag dani doon sa baay doon sa baay ko gën la laf cat yàlla bu la cat dugg fàllu nag mu ngi lay sant di la gërëm di ñaan yàlla sarax bi yàgg sa loxo te yàlla na fi géej sa barke Seyduna Muhammad jërë ngeen jëf di nuyu grand champion Modou Lo di nuyu Xaadim di nuyu sama waa ji at booy bi nga xam daf ma yab lool at yéen di nuyu euh, Fallou Ndiaye promoteur yi ak Prince ak kii ñambe di leen gërëm di leen sant yande damaa juum yande euh, Papa Biram teewaay bi rafet na lool tiitoon naa nag ba ma leen gisuloon waaye bi ma leen gisee sama xel dal na gën sama xel gën naa dal ndax euh, moom mii at benn booy ba nu mu tudd yenn booy gis naa leen ñoom ñëpp may leen ana Modou ñu ne ma dafa voyage dafa dem ca basket ba foofu nu mu tóota fa ñuy kiiba bi ñëwee dafa dem foofu comprendre nga waa kiiga bi comprendre nga ma ne kon xam ne loolu dem waaye xam naa su ñëwee dina ñëw waaw ndax lii ku ne mën na ko jaale sa bopp ndax ki dem suñu papa la papaam la moom ax lu làmb bépp fi daje kuy kilifa daje nga fi képp kuy mbër te nekk ci làmb ji ñëw nga fi te loolu mooy àdduna dañuy liggéey su jeexee jeex na mën nañu cap de ree lu ne waaye lan moo leen liggéey rek moo leen boole su jeexee rek jeex na ñoom ñëpp ñoo bokk ndey bàyyi ndax ñoom ñaar di mën nañoo dem ba tuddante ay doom loolu mooy adduna xoolal lii lan moo fi gën rafet ba waajuru Modou Lo làqoo Balla defu déplacement ñëw ba parcelle ak délégation tey jii lii am ba moom it mu def délégation ñëw ak ay nitam comme loolu mooy adduna dañuy liggéey dama bëgg nit ñi xam ko am ñoo xam dañ ko war a xam képp ku nekk ci làmb xam ngi dañuy liggéey rek su jeexee rek jeex na ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak bàyyi li sport la loo fi gis dafay jeex xool xool sunu papa yi dem ana Père Mbaye Gueye dem na ah barki Demba Ndiaye tey tey mu ngi nii suñu papa dem na père Douba Less moo xam doo fi gis dafay jeex doole dafay jeex kàttan dafay jeex nan ko rafetal àdduna amul solo àdduna amul solo fii ñëppay dee ñëppay dee de kon na rafet àdduna amul solo ñoo ngi leen di gërëm di leen sant ndax mënu maa wax sama xol sama xol dafa sedd ndax lii dafa rafet lii dafa rafet lii mooy àdduna tey ji su ma ko gisul woon dinaa ko gën a ragal te lu ma ko doon wax naa ko yokk ah waaw waaw lu ma ko doon wax naa ko yokk que su ma neexee ma wax ko lu ma neex ma wax ko ko su ma rakk la sama frère barki Demba Ndiaye ba ñuy waaj a la ñu ma di ko tooñ ne ko yow bi ñuy wax dama ko jox dama ko jox tey dina leer mu yëkkati loxo nëbal ma. ma ne ko li mooy àdduna sama rakk ngeen ma neex la andi wax te su ma dajee ak du ma def tous la ma def samay rakk lan ni ma jàppee Balla doon laa ko jàppee waaye nag gën a gën a yeey c'est mon frère sama rakk bët moo koy xoolee laa koy xoolee. Modou ñun ñëpp samay rakk la yàlla na nu yàlla defal jàmm lii yàlla na fi gëj taxawaay bi nag ak ñëw bi wax dëgg yàlla gërëm nañ leen sant nañ leen ak bi ngeen ànd su leen neexoon ñaar ak ñett rek yolle ko daal daw ñu waaye defu leen ko da ngeen a jóg war ni ki dem seen kilifa la seen papa seen lépp la ngeen def délégation ñëw ñoo ngi koy rafet lu baax a baax a baax a baax gërëm nañ leen sant leen Fallou Ndiaye tamit sa taxawaay rafet na promoteur gis nañ délégation bi nga àndal ñoom Prince at Yande at Jamaïcain ak ak prince vraiment taxawaay bi rafet na gërëm nañ la sax ndax képp kuy promoteur képp kuy mbërul làmb képp kuy ancien gloire teew nga fi at at pël tamit si délégation bi la bokk waaw képp kuy kuy mbër wala ngay promoteur hmm, wala ngay kilifa diine kilifa aada ñëpp a fi teew ndax ki dema ko ki dema ko ki dem la nag ki dem la dafa am lu mu fi bàyyi am lu mu ci xam nga léeg-léeg ñu dégg ñu pet du bale dafa tàng dafa naqa déedéet daan bañ ko ko yàpp am fulla am jom am fulla am fayda te loolu def na ko ci ay doomam te ku nekk nag ñi sàkku ngërëmu waajur loolu rek moo jar a sàkk mun nga dem sëriñ dem fu ne di ñaanlu ay say waajur suñu la gërëmul suñu la gërëmul du baax de te loolu ñaan du nangu kon nag nañu sàkku ngërëmu waajur loolu rek moo jar a ñaan yàlla na jàmm yàlla na fi lii gëj jërë ngeen jëf kontaan naa mbërgale yaay mbërgale yaay su guddee fooy fanaan